pas la peine de le dire premier ministre chef du gouvernement nous publié, nous avons ni dañ ko pour une fois ci publié, bu tous les rapports euh, Cour des comptes publié yu ni chaque année dañ ko nous publier publié, nous ko publié, bi publier je le disais la dernière nous avons publié,

Euh, on va faire ceci, on va faire cela wax ngeen ko ba noppi c'est plus la peine parce que sénégalais yi ñoom fal jox leen confiance ne leen doxal leen il a même expliqué ci lu jëm ci bale boobu euh, président Diomaye di faral di yore ci ba ci campagne bi wax na lan mooy soleil bale bi gis nga euh, expliqué na ko soleil bale boobu ak fi mu jógee ak li ko tax pour moi, euh, ce c'est même pas la peine de dire ça aux gens de dire aux gens on va faire ceci les rapports sont là def ay actes acte positif sortez les rapports Il n'y y a pas à chercher de midi à 14 h que le couperet tombe li nañ tek bop yi nañ war a dagg lañ ko dag amul xaar amul ay waxtaan euh, on va faire ceci on va faire cela jaru non c'est pas la peine non amna na ñoo xamee ni non parce que non xam nga lutax tax ma wax loolu dañu fi gis ñoo xamé ni mais li guéné ci rapport yi mais prédation prévarication fond financière bi ci am mais am na loo ni c'est c'est un c'est une image que je donne mais amna ñu xamé ni ne ils la guillotine kon jarul sax naa leen non dañ leen dañ leen dañ dal sen kaw c'est pas la peine ñëw ñi ñu wara dal sen kaw xam nañ dañ dal sen kaw parce que bind nañ ko ci rapport yi nañu exécuter les rapports yi wax recommandation yi ñu wax nañu wo procureur ci nangam procureur na wo nangam ci ki on a qu'à l'appliquer les Sénégalais vont applaudir parce que il euh, y a des choses qui xamee ni on peut pas laisser passer comme ça romb ko le moulin de di artu c'est pas la peine. avez une premier ministre nañ bale justice bi yoon